la Antoine Félix Abdoulaye Diome mi ñu tabb ministre bi yor pétrole ak énergie ci gouvernement Amadou bu yees bi dal di jébbal lenge yi jëwriñ bu bees bi ñu dénk wàllu biir réew mi di maître Sidiki Kaba. merci beaucoup monsieur mu doonoon jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi yore na bila la ci nu ma gën a muccee ayib tey jii mu war a dem di xamle ne. jéego yi mu amal yépp teg na ko ci xam responsabilité bi nga xam ne moom la ko njiitu réew mi dénkoon ak kii di Elimaanu jawriñ yi waaye ne xelam dal na ci jox ki nga xam ne moo ko nar a wuutu lenge yi. je suis conscient. waaw xam naa xel responsable bi nga xam ne moo nekk ci samay wagg ak la may xaar ngir rek sama mission mat waaye tamit daan ci def suñu kéemtalaay kàttan tey jii njiitu mi daf ma daal di confier li nga xam ne mooy ruux ci liggéey ba tax na amul ci benn sikki sàkka ci liggéey bi ak résultat yi nga xam ne moom la ñu xaar te daanu ko am. sur les résultats qui seront obtenus. maître Sidiki Kaba moom dal di rafetlu liggéey bi nga xam ne Antoine Félix Abdoulaye Diome dal dina koy amal tey it dogu na ngir amal ay élections yu leer ci jàmm ak ci kaaraange. qui m'a été confiée par son excellence monsieur le président de la République waaw fooy de bi nga xam ne moom lañ ma daal di dénk jaarle ko ci euh, njiitu réew mi moo rek ñu daal di liggéey fexe ba ñu daal di euh, xam li nga xam ne daal moom lañu ñu war a tàmbali waaye tamit daal di koy amal ci euh, délai yi mucc ayib te Sénégal bu ñu nekk rek mën cee gis boppam ci wàllum jàmm waaye tam ci wàllum kaaraange mën a dem vote ji daal di bi daal di. qui sera le verdict du peuple. verdict qui sera respecté. Antoine Félix Abdoulaye Diome moom tamit dal dinay xamle ni am na mbégte ci liggéey bi nga xam ne amal na ko ak équipe bi mu àndaloon ba tax na mu xamle ne sax ay jéego def nañu ko ci gën a ñoŋal kaaraange réew mi ci dossier yooye sax nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi bu bees bi mën na cee tënku ngir mën a wëyal liggéeyam.